waa ma ne eh, may laay day de laa wóor wóor dem na kën waxi mag dem na dañ tàll foog jëlaam la waaye doon jaay léegi mu lamba Ousmane sonk mu sell mi le 30 investiture bi foofu toj ginnaaw bu nekk mu jàllee ne woon naa leen mbirum suñu boroom moo nekk si yëfi Ousmane yi tappaleeg caaxaan ak sos wallahi manu si dara donc gars yi xam naa ne moom tey moom xol yi dafa féex alhamdulilah la trente bi loon naan la trente lan moo la xew nengam ni investiture fële sa parcelle kon na ñëpp a ñëw du dëgg na ñëpp a ñëw ñu toj fi rajaxe ka waaw toj rajaxe la la la la bi nekkoon Kër Massar bii naka raw naka doublé Sénégal gépp waa diaspora sax bañ mënee ñëw ñëw leen waa diaspora bañ mënee ñëw sax ñëw leen ci xew yi na xool senegal gépp nen nen bloqué Dakar nen wane ne ñi fi nekke ah ñoo leen man ñoo leen ëpp doole ñoo leen ëpp mbooloo te dëkk bi mu sell mi kese lañ tàmm mu sell mi kese lañuy ñuy topp waaw kay ñoo xamee ko noonu mu neex hmm? tey xool sedd na waaw xool sedd na tey waaye nag li si kanam moo gën a neex ñun ñoo aye bëgg waaye ñoom ñoo aye mer bul bee tourné yàlla na moo ko doxalee nii di ko sant nag bu baax a baax si li mu ñu defal nii waaw xamoon naa ne yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàlla day jàppale Ousmane Sonko xam ne mu ngi fële sa ka ka tëdd foofu yàlla di defar mbiram waaw tëdd foofu yàlla di defar mbiram <laughs> wallaay ak ngeen teg yëpp gis ngeen dégg sànq sànq sànq ngeen ayib dafe sànq dégg ngeen ayib dafe mu ne Ousmane Sonko moo ñëpp a moo ñëkk a déposé wallaay ay defe ndeysaan ma ma ma ma ma ma ma ma lancé le message de passage ay defe bu ñu ne kuy kuy kuy papaam ñu ne Balla Moussa Daffé le grand politicien wallaay ayib nii rek nga mën a mel Daffé ma nekk nii rek nga mën a mel Daffé jumloo nga gaa yi defloo nga gaa yi luñ ci war a def ba ba ba ba ba conseil constitutionnel sukkandiku si loolu accepté lépp Ousmane Sonko. wallaay dafe billaay kontaan nañu si yow dafe kontaan nañu si yow bëgg nañu si yow kon gars yi le 30 incha allahu rabbi Fawaye la yeewoo si Sénégal moo xam sax si diaspora ba la neexee ngeen ñëw na na na na na terrain ACAPES Parcelles fees yàlla bala tuuru mu raw ñetti yoon Kër Massar waaw loolu neex na sama gars yi bëgg si yéen rek sama xol sedd nag. <laughs>